donc projet bi projet la bo xamni day permettre jigéen ñi comme ni ngeen ko xamé tay ji aduna aduna bi fiñ ñu moy mooy li ñuy wax moy naka lañuy def ba générer comme comme bo xamni du am impact bo xam dafa négatif suñu suñu suñu environnement ak aussi pour santé nit ñi donc approche la bo xamni euh, monde bi yépp ñu ngi koy ñu ngi si liggéey ñu ne approche bu bees la boo xam ne mun jigéen ñi am nañ si seen rôle à jouer mais naturellement au Sénégal dañoo trouvé que ni jigéen ñi ñu ngi doon activer beaucoup ces transformations agroalimentaires danaka jigéen ñi bu ñu liggéey ñoom dañuy xool dañuy déjà tenir en compte nu ñuy def ba nga xam du ñu lor seen gox du ñu lor nit ñi donc de manière naturelle les jigéen ñi dañuy essayer entreprendre de manière de manière comme on peut le dire verte. léegi projet bi moom doon doon doon jàngat di xool Sénégal yan texte moo am c'est industrie verte Sénégal naka la jigéen ñi dañ leen dugalee prendre naka lañ jëlee en compte jigéen ñi dans les politiques bi nga xam ne ñoom ñoo tënk lépp luy industrialisation ou industrie verte Les ba sayto xol xol ni que opportunité bari na xol ni gis nañu aussi que priorité du Sénégal leader politique yépp ñu ñu interviewé ñom jigen ak industrie verte nek na seen cœur seen politique donc moo tax aussi ñu am yaakaar ni que Sénégal euh, dëkk la boo xam ne dina neex neex trop pour permettre jigéen ñi ñu gën a yokk seen koom-koom si type d' activité yooyu de gën a jëm kanam gàllankoor mom que ça soit de manière globale nek jigéen entrepreneur rek gàllankoor yi bëri na waxatuma la nek jigéen entrepreneur bo xam da nga bëgg entreprendre ci industrie verte gàllankoor bu ñëk bi ñëk gis moy avoir accès à l'information moy xam tay dama xey bëgg entreprendre ci lo si si euh, créer ay produits yo xam ne soit produit vert la wala ni ma koy defee des impacts moins l'environnement fan lay jëlé information kan moom mooy wax lu mu mën a def ban entreprise daa war a créer donc dañ seen rendu compte jigéen ñi ñu bëri amuñu information sur type d' activité boobu. deuxième gàllankoor bi mooy aussi une fois que nga am information mooy nu ñuy def ba mën a liggéey si. type d' entreprise boobu tey jii bu ma bëggee jóg bëgg a créer ban machine laa war utiliser ban machine moo gën nu may def ba am information boobu noonu beneen information bi aussi mooy comme niñ ko waxé moy aussi jigéen ñi dañoo soxla am ay cercle yo xamné fa leen daje di waxtaan am cercle yo xamné aussi daf leen di permettre am ay image c'est-à-dire ñan ñoo réussir Sénégal ci domaine bobu non ñu jël leen ñu jël leen comme comme des des des exemples des exemples pour pouvoir avancer donc yooyu yep ay gàllankoor lo xamné rapport bi woné nako té tay ji suñu dajé tay ji aussi moy ñu jéma trouver des solutions par rapport à gàllankoor proposer ko nek suñu leader politique bañu intégrer ko ci bépp politique bu xamné Sénégal dañ koy yëngëti jëmlé ci koom-koom ñu mën ci intégrer industrie verte ak jigéen ñi